ayca jërë ngeen jëf ah, comme ni ngeen ko waxee ba tey rek ñu ngi nii ah, euh, Sénégal Japon tey dañu si gërëm ñëw fi ci lu demee nii parce que Sidi moom ko xam-xam digganteem ak ay soppeem rawatina tey muy fan sa club Sidi famille bi Mame Fallou jiitu ko ah, tey ñoo amoon fi match vraiment mu doon match boo xam ne nag euh, toog leen ngeen xool Sidi maa ngi lay nuyu. waaw guy gi maa ngi lay fay maa ngi nuyu euh, sama xarit yi fi ñëw tey presse bi. ah di nuyu waa Sénégal di nuyu suma suma soppe yi nga xam ne ñoom laa nekk di fubalal tey fii ci Sénégal Japon di nuyu tamit képp koo xam ne yaa ngi may seetaan maa ngi lay nuyu leen <laughs> diggante ak say ak say ak say ak say mm. dañu gis complicité bi bi nga am waaw man lii tuddeewu ma ko sax soppe quoi man famille laa ko tuddee. Mm. waaw man ak ñoom weesu nañ ay soppe ay fan ak yooyu man ak moom famille lañ man ak ñoom donc ñoom depuis depuis ma door ba tey ñu ngi may jàppale. nekk sama wet di ma dooleel fu ma tëgg yaa ngi gis ñi ngi bàyyi seen yitte ah, depuis quatre ans trois ans ñi ngi five te chaque samedi ñi ngi bàyyi seen yitte di ñëw donc ñoom it yii la ñu am ci ñun moo tax bi ko Mame Fallou organisé ma ne c'est une très bonne initiative ma ñëw bëgg ak sopp yi football nag ñoom pour wan leen ne mën a ñoom seq ñu ay soirée wala ay musique ak affaire yooyu dañu seq lu lu lu weesu loolu li nga fi gis famille la. Mm-hmm. waaw. ñu mel ni yemul ci lii parce que gis nañu aussi tamit da koy yaatal daan nga dem ba ñaari tali. waaw di déplacé wu fan si club bu nekk rek ba ci gàddaay. gis naa aussi tamit effort yooyu yaa koy def. waaw ñu ngi fépp la ñuy fépp la ñuy def temps yële def nañu gàddaay. xam nga mm-hmm. ma football ak sama sama grand frère yi nekk foofu noonu. Mm-hmm. donc euh, war nañu fan yële abu Sala yóbbu na ma fi Kaolack aussi ma def fi benn match man fépp sama soppe nekk rek mhm. damay bëgg dem fekk si la ñu dund parce que famille la daal mhm. man ak ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi tey kenn ku nekk ki lay bëggee danga koy safoo ñoom lii la ñu am ci ñun yi tey bari nañu ci album laa nekk dama doon enregistré abo gars yëpp dañu doon enregistré mm-hmm. mais dama ne ma taar nañu bàyyi tey tuuti dem tamit xam nga parce que ñoom it dañuy bàyyi seen yitte duñu ñëwal mm-hmm. kon bu ñu organisé c'est tout à fait normal ñu nit ñu bàyyi tey ñëw football la ñëw waaye match bi bu ngeen attul naa leen rey de ñu ngi ci ñaata 4 2 4 2 4 2 yéen ah, te ngeen noppi waaw def na man def na ñaari ma war a dugal nga ni ñaar d'accord am na solo Siri ñu gis ne décembre bi tamit euh, vraiment daanaka day xaw a xat trop euh, ñu gis nga jëmal ay date le huit le neuf le dix nga war a dem fee di Côte war a fa jouer naka ngay waaj événement boobu waaw bon événement la boo xam ne bu ma jumul demoon nañ fa daaw géej mm-hmm. ren aussi ñu fay demaat muy le huit le neuf le dix mm-hmm. donc ginnaaw suba la ñu war a dem pour bégal leen benn association boo xam ne ay sénégalais ñoo ci nekk donc ñu war fa dem rek bégal leen du man rek am na yeneen artistes sénégal yu ma war a àndaale ñu dem fa suma rakk Ousmane Bongo day dem mm-hmm. euh, ñu bëri war nañu fa nekk donc ñu wax waa Côte d'Ivoire nañ ñu xaar fii di ñëw bégal leen bu ñu ñibbi si aussi wéyale suñu programme décembre fii ci Dakar. waaw parce que le 15 man dama yaakaar ne bu ñëwee noppal le 15 tamit tàmbali waat Five. waaw le 15 euh, samedi laa doon waaw tous samedi laa doon Five mais le euh, le 16 boobu samedi boobu dafa fekk ma war a jouer ñaari gala. waaw dama war a jouer gala ak Jeff euh, Praor mhm. King Fat Place bu ma génnee King Fat damay duggaat tamit ci beneen salle mhm. jouer waa Kofina banque Kofina mhm. donc le 16 boobu du ma ci mën a jouer five moo tax ma wàccee ko def le 15 parce que ci décembre la nekk du ma leen may dara du ma leen mayu dara ci ci terrain te ñoom it soppee du ma leen may dara le 23 war a décembre bi jeex le a demaat Thiès waaw balaa waaw le 23 tamit ma war a demaat Thiès bégal waa benn dëkk ñaari gar di nuyu waale sama buur donc gars yëpp ñu ngi may xaar foofu artiste su comédiens yi dawal ko ci jakarta yi taximan yi chauffeur clando yi sama yaay sama papa yi ñëpp a ngi may xaar donc guddi guddi kajoor la foofu ci camp Sapeur bu Thiès ma ci woo képp kuy sama soppe ba Tiwaawan maa ngi leen di invité incha allah le 23 décembre foofu ci camp Sapeur date bu mag waaw balaa boobu balaa boobu euh, dañuy dañuy dañuy war nañu def aussi euh, le 29 war nañu jouer Dakar le 24 décembre maa ngi soirée maa ngi def soirée all white foofu five le 25 décembre tamit il se ñu dem Baaramundi le 20 euh, le trente maa ngi war a jouer benn concert fan ak mhm. ay fee fan bi nga xam ni jamono ji ñu ngi nekk di yëngal secteur boobu mhm. ma war fa dem le 30 incha allah décembre le 31 décembre mhm. maa ngi jëm euh, place de l'Obélisque ànd ceeg mairie ville de Dakar donc du ñuy nuyuwaale sama papa monsieur le maire euh, mu jël bis bu toll noonu teg ko ci sama loxo donc du yomb le 31 décembre maa ngi woo soppe ñu génn ci 2023 tàbbi ci 2024 ak jàmm te yàlla bu ko kenn ute bu ñu fa jógee nag génne album bi incha allah. album bi waaw album bi décembre bi album bi aussi tamit lan lañ ci mën a xaar. maa ngi leen xam nga fan yële defoon naa fi benn clip bu ñàng mais génn gul. <laughs> si gars yi ma war nii xam nañ ko. ñoom fekkee nañu clip bi liggéey naa benn affaire boo xam ne xam naa ne mais xam nga sama yëf dama ci yàqamtuwul dara liggéey naa ko teg mais war na génn ci décembre bi mhm. nañu ko xaar war naa am tamit beneen single bu doy waar boo xam ni maa ngi koy maa ngi koy togg ñoragul mais bu ñoree bëgg nañ leen ko jox ci Noël bi mhm. incha allah album bi war na génn balaa maa dem Zénith hmm. may wax nag la vingt neuf juin incha allah fii di Diop mi ngi Zénith de Paris waa paree ko doon laajte ndax daaw suñ tournée bi abu bu ma juumul defuñu Paris ah. Italie lañ def Allemagne wër Italie bi Genova Torino Milan mhm. donc Paris gëj nañ fa depuis deux mille dix-huit bu ma juumul bi date la boo xam ne maa ngi ciy woo waa Paris gépp sama yaay yi sama papa yi jeunesse bi sénégalais yi mhm. ah moodu moodu yi mhm. faatu faatu yi ñëpp maa ngi leen di invité te xam ne c'est un grand rendez-vous mhm. donc waa Italie waa Allemagne Suède ah sama yaay nee na nee na Diallo Tagna maa ngi koy woo tamit ci bis bi muy sama yaay ju baax donc Europe bi yëpp maa ngi leen di wax nañ jàpp date boobu. Mhm. le 29 juin Sidi Diop mi ngi Zénith na ci ñëpp ñëw jàpp te xam ne feetu sénégalais yi la. Mhm. feetu africain la feetu seen doom la. da ci mhm. ñëpp ñëw incha allah ñu def ko guddi gu rëy. d' accord Sidi parcours ak parcours bi nga def. ak vraiment Sidi nekk koo xamante ne tey carrière boo koy wax doon na koo xam ne dafa lëndëm dafa xuus jaar. vraiment yoon bi métti woon na bëri na xaaxaam mais à chaque fois ba keroog bi nga wax naan wóolu naa xamante ne daal tey du ma ni dañ ko teg loxo mais dafa xuus ba ak sa fii par rapport ak démb sa benn nawle taxaw mu di wàlli ñu koy nuyu ci kaw seen mu ni njàpp yow ak sa patron samay doom jël kàddu googu waaw waaw bon loolu façon de parler la rek je pense yow wax nga lépp bu ma juumut fi ma dooree ak fi ma ak fi xam nga ne man jàmbaar laa hmm. te nag yàlla dafa dogal nii man képp ku ñëw ci man rek dama lay xool nu ma lay yëkkatee hmm. barki dem bi may joué Sorano ñi jóge ci njabootam ñëw ci man mhm. dama leen a yëkkati man mhm. noonu la ma yàlla bindee taalibu Serigne Touba la mhm. ku jóge ci moom tàbbi ci man dama lay yëkkati kantaa noonu nag man du ma minimiser doomu jàmbur te man du ma fisu kenn Omar Diop mooy sama papa benn papa la am sama papa bi ma jur jëndal ma xar ngénte ma tuddee ma di Diop kooku mooy sama papa du ma fisu kenn sama grand frère la et c'est un gars que j'estime bien mi ci yoonam te fi mu ko yóbbu je le respecte je l'aime beaucoup gis nañ coobam mm-hmm. gis nañ li muy def rafet na trop mais suma grand frère la suma naw la artiste la mm-hmm. man du ma fiisu kenn ndaxte patron la mm-hmm. damaa yor sama orchestre di fay ñëpp kon boo ma fiisoo rek wala nga def dara dinga nga fiisoo ñi ñëpp te ñii ay kër la yor te man maay seen patron ñoom donc pour tëj wax ji du ma fiisu kenn benn bàyyi laa muy Omar Diop ñu woye la mat si <laughs>

ñuy xaar. yàlla ndax wala fépp. waaw sëriñ bi waa doon nii. waaw yow yaa man. ah yow ma jubba. non non non non Diop. xar rang bi. ah wàcc ci ngañ dem ba war. doon gari yow baax rek la métti. métti def ni doom baaye doo ragal. jar boulanger. sauf jar na ragal nga dee. seen na. Fallou Mbaye. jigéen na jigéen na. jar kana daal. à tous. Avec Fitch Fall. À tous. <laughs>